dafa daanu lu xew Seydou c'est grave hein c'est grave c'est grave suñu confrère la mi ngi nii daanu gis nga ko nii suñu confrère la mi ngi nii daanu ah bal bee ko daal bal bi oto bi oto bi yëg ci kawam oto ban ah. oto bi mu mel ni oto bi moo yëg ci kawam mu mel ni oto bi oui non non non non non du fës du fës du une confrère